Bienvenue dans votre maison de production. GP, Gabon Production, Académie Médan les meilleurs dans les besoins de la population sénégalaise. علي لوجه الله جل جلاله لك در أمداه المسايا كترفع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 mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokki àdduna yëpp su ngeen gisee jataay bu tedd bii li ko waral rek mooy bis bi nga xamante ni bii bisu Cheikh Mamadou Moustapha la sunu sëriñ sunu kilifa Cheikh Mamadou Lamine di ko woote at mu jot mu war a doon leen ji 7 janvier 2023 Thiès randu leen bis boobu nag macha allah moo jub si ñu ci woo ñëpp di ko wooteel Cheikh Mamadou Moustapha mi nga xamante ni bii sëriñ mu Ka da ko waxoon ni ko. yow Moustapha gërëmal ngir yàlla fàttewu la te fàttewoo ko yow it ndam lépp topp na la ba yàlla àttee ñu fab mbir yëpp jox la ba tey taxoon nga soppi ko as lëf kenn jéppiwu la kon Cheikh Amadou Moustapha war naa ko ñu koo wooteel bis saa su nekk bis boobu nag sëriñ bi di ko woote di ci woo jullit yëpp xanaa rek ma jox sëriñ ma dikke Njaay jawrin mu ñëw ci woote turu kilifa yi ak li aju ci dëkk bi yëpp bu yeggalee mu jox sëriñ Aroona ndooy mu dugg ak ñun ci programme bis boobu waaye bu yeggalee nag ñu jox bàyyi ba Mangane mu woote ci turu sëriñ bi ci mboolem dëkk yi nga xamante ni bii noonu ñi ci Thiès waaye nekk ci Sénégal. asalaamaaleykum mbokk jullit yi rawatina mbokk taalibe yi eh, ñuy dellu di firndeel ni bés boobu nga xamee ne Cheikh Mouhamadul Amine moom sëñ Mbàkke man na mi ngi koy jagleel mag maamam ju tedd ji muy Cheikh Mouhamadul Moustapha mi taawu Xaadimul Moustapha mi ngi koy jëf nag ci kilifteefu ak ndigalu Cheikh Mouhamadul Muntaxa Basir moom mi nga xamee ni mooy xalifa yoonu murid yëpp di ñaan suñu borom yàlla na ko fi yàggal lool te mu ànd ak wér di ko defit ci kilifteef ak ndigalu sëñ Ahmadul Moxtaar mi nga xamee ne moom moo jiite njabootu Daaru Xuddoos yëpp di seen kilifa di ci tegit magam ju tedd ja gu baax ga muy sëñ Cheikh Mbacke man na ko sëñ Cheikh Bombali xalifa ak sëriñ Mbacke man na di ci teg sëñ Abdourahmane Mbacke moom Gaynde Fatma mi nga xamee ne moom moo jiite njaboot sëñ Gaynde Fatma yëpp e, di ci woote ci bés bi nga xamee ni mi ngi koy di def ci samedi juróom-ñaari fan ci weeru Euh, janvier bi ñu dërmel ci euh, quartier bi ci randu leen nga xamee ni fa la ko daan defee at mu jot fa lañ koy euh, defee kon ci kilifteef yi yooyu yëpp ci la ko tënk bés bi di ko def at mu jot di ci wane képp koo xamee ni yoon bi soxal na la di ci tàmbalit fii ñu nekk ci Thiès gi di ci woo njaboot suñu Saliou Touré di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér di ci woo njaboot njabootu sëñ Mourtada Mbacke yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Thiès yëpp ci njiitu sëñ Tàkku Mbacke ak lépp luy raqam yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi rootu sëñ daa sëñ Daawda Mbacke ak ñi mu bokkal di ci woo tamit sëñ Moussa Mbacke Gaynde Fatma mi nga xamee ni mooy doomu sëñ Cheikh Mbacke Gaynde bi nga xam moom lañ nekkal Thiès di ci woo tamit waa kër sëñ Massamba Mbacke yëpp bàyyiwuñ ci kenn di ci yi nga xam ne ñoom ñoo féete Thiès ci eh, te ki fi nga xam ne moo ci féete muy sëñ Matar Mbacke di ci woo sëñ Cheikh Sorang mi nga xamee ni moom moo nekk soxna Bintu di kilifa gi nekk ca bopp ba di ci woo tamit sëñ Fallou Bousso imam moom mi nga xam mooy imaamu jàqee murid fii ci jumaay fii ci Thiès di woo waa wilaay yëpp ñi nga xam ne waa ko sëñ Cheikh Mbacke lañu ci jiitalu sëñ Moustapha Dieye moom mi nga xam moom mu jiite section bi di woo tamit waa islaaxu daare nii yëpp mu njaboot sëñ Mbacke mën na ñi nga xamee sëñ Njaga Sey moo ko jiite di woo ñi nga xamee ni mooy waa ko sëñ Moustapha Ndiaye ñi nga xamee ne sëñ Ibra Sey moo ko jiite di woo képp koo xamee tamit ci njabootu maam Cheikh Rafal nga bokk ci xalifa bi ba ci ñëpp buntu kër yi ca bokk yëpp ñu leen ciy woo waaye nag da ci beral ak woote sëñ Moussa Fall Euh, mi nga xam ne ni moom wala rek sëriñ bi la di ci woo tamit euh, sëñ euh, Cheikh Ngunda mi nga xamee ni da di xaritu sëñ bi di léppam di ci woo tamit sëñ waa ka sëñ Assane Fall yëpp ak waa ka sëñ waa ka sëñ Manu Mustafa Fall yëpp di ci beneen tamit ak woote sëñ Assane Fall Baye Góor di woo tamit ki nga xamee ni di kóllëre sëñ bi nga xamee dafa dem sax ba jagale ko bés bi nga xamee mooy ngont maam Cheikh Fall bi muy sëñ Soy Lo Matar di ko ci woo tamit di ko xamal ni ko bés boobu nga xam ne ngont maam Cheikh Fall la bu ñu daan def at mu jot ren ji ci àllarba bi lañ koy def di ci woo képp koo xamee ni Baye Fall nga nekk ci tundu Thiès gi rek boole lañ ci bés boobu waaye tamit boo baale bàyyiwuñ kenn koo xamee ni yaa ngi ci euh, euh, euh, tundu Thiès bi rawatina nag autorité administrative yi ak autorité politique yi bàyyiwuñ kenn ndax sëñ moom dafa am ak ñëpp cër ba nga xamee ne buy woote ñëpp ñu ngi ci biir di jiital gouverneur mi nga xam ne moo jiite région bi ak préfet mi nga xam ne moom moo jiite département bi ak sous préfet ñëpp boo lañ leen doo dem képp koo xamante ne yàlla dogal na nga yëngu ci wàllu euh, àdduna di yëngu ci wàllu politique ak foo ci mën a bokkee rek woo nañ la ci bàyyiwuñ kenn. kon mbokk taalibe yi bis baa ngi noonu mi ngi am le 7 janvier fii ci Thiès ci leen noor ci kër Sëñ Leen Baara Mbacke Medina bés bi nag ren dafa am tuuti coppeeku ndax ngontu maam Cheikh bi nga xam ne alxames daan am ren jii ñu ngi koy def àllarba ci ngoon incha allah rabbi jàllee ko Serigne Cheikh Lo Moukhtar mi nga xam ne day kenn ci sëriñ bi kon sëñ bi ci kàddu sëriñ Cheikh Lo Muxtaar mu ngi ci woo képp koo xam te ni kuréelu Baye Fall nga rek nekk Thiès ak lu ko wër euh, bu ko defee nag yeneen ñaari fan yi sëñ bi da ci recevoir ay ganam noonu la ko defee ngir gan yi mu mën leen a recevoir recevoir bi nga xam ne moo war ndax léeg-léeg bi daan xat ci moom su ko defee bu ñu demee ba ci samedi bi muy le 7 janvier suñu xëyee daan ko ubbee njàngum alxuraan ci njiital Baye Sawru Gueye mi nga xam ne mooy daara sëñ bi ci Jobaas ak sëriñ Ousmane Dafe ak sëriñ Tamsir Ndiaye ñëw daal ci biir kër gi njàngum alxaam it dina ànd ak durus xasida durus xasida boobu it sëriñ bi nee na mi ngi ciy woo mbokk taalibe yëpp waaye suñu bàyyi taalibe yi nekk euh, fii ci Medina Fall mooy ñoom si alaaji ñang ñoom la sëriñ bi jox maanaam njàngum xasida bi ñoom ñoo koy jiite suñu nekkee ci njàngum xasida bi ay booru 11 heures sëriñ bi dana def nam ko daan defee maanaam ànd ak mbokk taalibe ak jëwriñ yi wër mbooleem waañ ñi nga ne ñoo ngi ci bés bi ndax bés bi toll na foo xam te ne waañ dañoo bëri te sëñ bi bëgg da bàyyi kenn kon dana ànd ak délégation bi def na ma ko daan defee ànd wër mbooloo yëpp wër wër wër wër euh, maanaam waañ yëpp njukkal leen sargal leen suñ demee ba baaru tisbaar ba xew yëpp daje maanaam ñu commencé nag bende yi bu nu bendee ba 15 heures ñu noppalu bu di sa nag gars yi commencé ñu di jëbbale am na daayira yoo xam te ne nekkuñu Cees dañu indi seen benn bu ñu demee ba tàkkusaan sëñ bi dana leen recevoir ak yenn autorité politique ak étatique yi sëñ Madické Ndiaye doon lim léegi sëñ bi dina leen recevoir entre 17h ba 19h su ndee ba 19h nag ñoomee sëñ bi mu dellu ci biir waaj bu 20h yi mu daal génnaat su génnee nag ñu waajal tante bi def mise en disposition bi ci biir tante bi nag ñu xam ne sëriñ bi ma Madické tudd na ko léegi day sëriñu waa Sénégal gépp na waa Thiès gépp kon ñu ngi ciy woo daayira jànkatu xasida yëpp nekk biir Thiès ci njiital sëriñ Ndiaga Teggin mi nga xam ne moom mooy daayira fii ci région de mooy seen njiit ñoom ñëpp kon jàngkat bu dëgg lii nga xam ne invitation bi teg na ko ci loxo sëñ jëwriñ sëñ njëkk a teggin moom mooy sa woote ñu xam ni ñu ngi ciy woo maanaam kuréelu xasida yëpp nga xam ne ñu ngi biir Thiès ñu ngi ciy woo daayira élèves yi ñu ngi ciy woo maj moo nooré ni ñu ngi ciy woo kuréel kuréelu Touba Diobass ak kuréel yëpp ñu xam nag bu ñu demee ba deux heures du matin Serigne Saliou sàmb ñëpp xam ko mi conférencier bi mag dana ñëw ci biir baas bi fàttali ñu dunduk Serigne Modou Moustapha fàttaluñu sëriñ Touba ngir gars yi nga xam te ni xamuñu woon sëriñ Moussa ñu mën cee namp dara ndax sëriñ bi ba mu fi jógee dafa yàgg bi 1945 kon tant bi noonu lay demee su sëriñ euh, Saliou Samb noppee jàng xës da xës yi ak kuréel yi continuer bu ñu demee bay waay julli fajar sëriñ bi ñaanal ñu yeewi mbooloo mi ñu ngi ñaan fekk ko ci jàmm te suñu yàlla dimbal ñu dente ngërëmal sëriñ Touba su ko defee jox kàddu gi suñu bàyyi sëriñ bi màngaan asalaamaaleykum wa rahmatulah barakatu bokk jullit comme ni ñu ko waxee ak ñi ma jiitu du bokk taalibe yi dëkk yi nga xamante ni xalaat nañ ne buñ leen tuddee ñoo xam ne ñoom ak sëñ bi ñoo bokk bës bi du dañ leen di woo waaye dañ leen di tudd ngir ñoom ñoo xam ne bës bi seen bés la muy jobaas ak li ko wër waa Ndaqaar Mbay Ngunjaan Jaag Naafaar Xombal daaray kër Sëriñ Mbàkke Madina Ndengleer Reefan Mbuur Toor Jandeer Mbeteet Caar Fiyaay Ngaay Pir kel paam Touba Madina ñu di ko wax sancub kër saa daaro kër mature nja kër birima kër demba kebe nooto pour jag ngolaar taateen mbusnaax taset bobaak ngunjaan jàmm gën daaru cubb kunun doomu aadamaa doon wax nag te lépp lu mu ci fàtte wala bépp dëkk bu mu fàtte ñoo xam ne ñëpp lañu woo sëñ bi dafa mënta ñàkk muy tudd dëkk waaye islaam ko tax a jóg ak murid la sëriñ Tuubaa lay liggéeyal bët bésub Cheikh Moustapha la ci ñëpp kuy jullit kuy murid ak dëkk bu ñu sëñ bi tudd nañ la ci. kon jërëjëf mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen a ko gisee noonu muy woote boobu ñaan yàlla sunu borom mu yóbbuñ ci jàmm Cheikh Mor Moussa sëñ Moussa Ka waxe woon rek. yow miy liggéeyal Moustapha bul fàtte Amdul Moustapha ak doomi Baye Moustapha ñoo amee mbooti xarnu bi kon nag mbokk yi sëriñ bi mu ngi woo mboolem jullit amma waaye di wo mboolem murit xaasa di woo mboolem dëkkandoo yi nga xamante ne bi ñoom la dëkkal ci sees rawatina randu leen ñu yaatal gan ñi dana leen nañ ko daan defee waaye di woo mbokki boppam yëpp bàyyiwul fenn bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn li ko dal Cheikh Amadou Moustapha ba ci sëñ Mourtala mu ngi woo ñëpp li ko dal Soxna Faat Ja ba ci soxna may suxuraa sëriñ bi nee na mu ngi woo ñëpp di woo mboolem seex yi nga xamante ne bii ñu aju ci yoonu murit ndax bisub seex Moustapha bisub jullit yëpp la waaye rawatina bisub murit yëpp la kon nag ñu fàttali leen ko mu war a nekk samedi le 7 janvier 2023 fii ci Thiès Nouvelle ci kër Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacke moom Serigne Mbacke Madina asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alimtu yaqinan anna mawlaaya kaana lii